njiital jàngukaay bu mag bi ñu duppee Assane Seck nekk ci Ziguinchor directeur bu Mamadou Badji nekkoon na ci dëkk bu tedd bi di Touba ñaar fukki fan ak ñaar ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci weeru mai atum 2023 gan gu tedd gi nag dikkaloon xalif général des Mourides ànd na ak ñi nga xamante ni ñoom lay liggéeyandoon liggéeyandool Serigne Ahmadou Badawi mi jiite mu jàmm Cheikh Ahmadul Khadim ànd ak Serigne Dambake mu Serigne Mamour la professeur bi ak délégation bi nga xamante ne ñoom la àndaloon siyaar nañu yenn barab yu ràññiku ci dëkk bu tedd bi niki jumaa ju mag ji ak daare kaamil may leen itam ñu gën a xam dayoob lenn ci mbindum Cheikhul Khadim. nous avons à travers les rayons. bi ñëw itam ginnaaw bi ñu defee tukkeeb nemmeeku bu yaatoo yaatu ci bibliothèque bi li ñu gis daal dal na suñu xel bu baax a baax nekk na loo xam ne nii wax dëgg yàlla mbooleem xeeti xam-xam yi nga xam ne nii dana jëriñ nit mu ngi ci mbind mi yemalew ko dong jàngale wàllum jullit waaye nag bokk na ci ay xam-xam yoo xam ne nii dafa jëm ci wàllum atte ak mbooleem fànn yi nga xam ne nii mën naa jëriñ doomu aadama fidèle à Dieu les rapports entre Euh, les êtres d'une même communauté. ginnaaw itam bi mu ziyaaree lu mel ni ay nu raxmat yi ak bayit yi délégation bi dalal na leen fii ci daara Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssou Diop mii jëwriñu daara ji dajeek ñoom laata nag ñuy dajeeg Serigne Ahmadou Badawi ak mboolem ñi nga xamante ni ñooy bokk moom liggéey bi foofee ca mu jàmma Cheikh Ahmadul Khadim waxtaane luy tax ak jàppante mën a am ci seen diggante. li sabab suñu ñëw bi ñun waa université Assane Seck fekk si suñu naataango yi di université Cheikh Ahmadou Bamba ngir ak lëkkaloo goo xam ne ni fës nañ ko yéene def ci anam yépp ngir dundal ak yaatal xam-xam jëf ji nag ñu ngi koy def ngir mboolem yeneen université yi nekk ci biir senegal mën a daal di roy ci jëf jile de pouvoir la base d'un certain nombre qu'il conviendra de dessiner pour que les autres universités s'en inspirent. Cheikh Mouhamadou Mountakha nag mi ngi dalal délégation boobu ci këram nga ca Daaru Minam ginnaaw boo xamante ni daje na ak ñoom won leen mbégteem ci seen tànku ziar ak nemmeeku yi ñu dikk ci Touba rawatina itam jàppalante gi nga xam ne fas nañu yéene mu dox seen diggante ak mu jàmm Cheikh Ahmadoul Khadim bi nekk ci Touba.